waaw bi ngeen di gis ni mooy seen chef waaw bi ngeen di gis ni mooy seen chef mu ngi joxe ay siñ mu ngi leen di wax li ñu war a def oto baa ngi noonu ay eh waay lii bu ngeen bee ci kaw te bee bee ci kaw eh, ay tey li muy sandi mu ngi noonu de lépp ay tëddi combat la lépp ay tëddi combat nga li oto oto gendarmerie bari na lool oto gendarmerie bëri na lool lool lool lool lool mu ngi noonu policier yaa ngi noonu mu ngi noonu ñu génne barre de fer yi ak xeer yi ndax seen avancée mën a gën a gaaw seen chef baa ngi noonu xaw ma colonel la xaw ma commandant la xaw ma capitaine la xaw ma lu mu waaye chef la de. waaye marabu bii di commandé nii. waaw sës biir direct bi. waaw na ko na ko na bàyyi loolu. Serigne Thioune waay bu bëggee loolu na dem service commercial. Ah. waaw. na def 428. waaw 73 91. waaw ah sëriñ bi. sëriñ bi waaye publicité bi ngay def nii boo bëggee publicité defal 77 428 73 91 ah mu def loolu mu ñëw ñu waxtaan waaw ñu defal ko ay mbir ah waaye chaque jour bu ñu dee direct rek mu dugul waaw gaa ngi noonu de gaa ngi noonu. waaw xoolal lii xoolal lii xoolal lii xoolal lii lépp lañ préparé lépp gaa dañ ko préparé oto oto yi oto gendarmerie yaa ngi noonu oto gendarmerie yi ngeen di seet noonu ci ginnaaw oto gendarmerie yi ngeen di seet noonu ci ginnaaw ak a ñoo bëri lu mu tuuti tuuti tuuti mat na ñaar fukk ñu ngi fii ci ginnaaw ak ci kanam gaa ngi nii taxaw muy noonu muy noonu de waaw li ngeen di seen ni moom lañuy ñuy tiire lii li moom bu tiire moom ay kilomètres kilomètres ñu ngi préparé li ñu war a li ñu war a li ñu génne waaw waaw lii moom buñ tiire comme lii moom ay kilomètres lay def lii moom buñ ko sarse ay kilomètres lay def waaw waaw lii moom buñ ko sarse moom ay kilomètres ngeen lay def waaw dañ koy dañ koy def dañ uh, koy chargé waaw dañ koy chargé lacrymogène bu feesee rek ñu di tiré fu mënta taxaw foo mënta taxaw dina la jot voilà foo mënta taxaw dina la jot comme sama euh, collègue num ko waxee waaw waaw voilà muy noonu ay appareil yu nga xamante ne gendarme yi ñoo ko fi indi waaw waaw ñu ngi doon de ñu ngi noonu ay bu feesee rek dañuy xaar ndigalu chef bi chef bi mooy jëkki jëkkëri ne leen sandi leen voilà ñu ngi ba sànq léegi noonu la doon demee ñu ngi noonu di ko sarté gis ngeen ko gis waaw ay carton la ay carton de carton yaa ngi noonu ay carton la de carton yaa ngi noonu ay carton la étudiant ñu ngi la dañ koy sarté rek waaw gis ngeen voilà waaw ñu ngi doon. waaw waaw jaa ngi li ñuy wax muy avancé. ñu nañ ko de. sarse nañ ko doon wax mu ngi noonu. waa ji sarse na rek. xam ñaata lay tirer bu rek amul laal laalaat day programmé rek ñaata lay rek mu door rek mu dem. sarse na ko de fees na waaw sarse na ko fees jël position. waaw mu ngi jël position de waa ji jël na position kii moom bu fi commencé moom yen ñëpp di ngeen xam ni commencé na waaw waaye moom du jóg rek tiire day xaar ndigal ay kilifaam lay lay xaar mu jox ko ndigal buñ ko joxee ndigal rek mu tiire.

loo gis rek moo gën moo gën moo gën lépp waaw lii moom kenn xamul lu ko fi jar waaw bu buñ daal ñu seq mbir mi toog waxtaan ngir jàmm senegal Sénégal daal moom jàmm rek moo fi xëy waxtaan seen biir rek ba jubóo waaw xool li ngay lijjante mi waaye li moom bu naree continuer lii moom boole ca xeex mbas mi kenn xamul fu ñu jëm waaw mi ngi noonu mi ngi noonu des sama gars yi sëy waaw oto baa ngi noonu xuj sori na taxaw na jàkkaarloog fi mu bëgg a tiire xuj sori na jàkkaarloog fi mu bëgg tiire waaw xuj sori na jàkkaarloog fi mu bëgg a tiire hmm? waaw gis nga waaw waaw waaw ñoo sibilu ñoo ñoo ni xale loo leen xàmmee ne ñoom ca lañ bokk daal xam ne bokkuñu ca waaye am na ko xam ne ay nerf lañ na waaw xaar gis na kon xaw ma kenn du ma koy naan rek fu ma war a yem laa yem man. mbir yi fu mu toll nii nee waaw waaw. liñ ko sànni ci grenade xale yi étudiants yi gis. dellu ñoom it plan. di laal yeneen pexe pexe. wala. waaw ndaxte nii de l'ordre yi. nit ñëwee nii waaw wane nañ doole de. waa BIP en renfort UNIVA gendarmerie en renfort est-ce que étudiants yi ñoom it jéem ñu changé. stratégie waaw ak stratégie ngir mën a indi lu méngóog di nga xam ne moom la force la dañuy indi. déedéet loolu loolu mënta ne. lu méngóog force la ñu indi ko <laughs> étudiants amuñu ko xam nga gis ne lii fi ñëw ci léegi. lii fi lii ne ci doole. mënu fi jeexal mbir mi. waaw. te xale yi ay xeer lañu yor ak ay yuuxu ak ay tàccu <laughs> kon seen arme boobu luur na trop trop trop. mun nañu ñi daal ñu ngi laal seen gis ngeen fii oto jaaro fi tey dina indi embouteillage bu moom. Hmm? sëriñ bi na jaar service commercial waay. Hmm? oto baa ngi noonu lii moom bu commencé sandi fii moom li ngeen di gis ñëpp daa fees waaw moom daal bu commencé sandi fii. 16 lay lay sandi waaw. ah fukki grenade ak juróom benn waaw fukki lacrymogène ak ak juróom benn lay sandendoo waaw waaw te yi safkaan yooyu lay sandi waaw waaw lu muy sandi daal lu safkaani la gaa ngi taxaw di laal seen pexe fi mu taxaw ni maa ngi seen ci biir ambulance ci biir université bi voilà Ousmane ne nii ci biir maa ngi seen ambulance bi dem service waaw waaw maa ngi seen ambulance bu jëm service médical ambulance bu weex la mu am ay rëdd yu rouge gis naa ko mu jëm foofu ambulance bi genre minicar la nii gis naa ko mu dugg ci biir comme étudiant ne nañ teg ñàkkul mu am ñu ñu blessé ci biir waaye loolu xibaar la boo xam ne ñoo ko xalaat rek dara warugu ci waaw nay leer waaw waaw waaw étudiant daal waaw non dañuy remplacer étudiants ah, yi eh, xam nga ñoo dañoo dañoo dañoo ci organiser tam ni ni ñu organiser non dañu organiser ñun tamit dañu après ñu organiser hmm? waaw waaw waaw waaw jërëjëf di Jean doon ah du guerre de sorew ko de Jean jërëjëf waay Jean merci beaucoup ci liñ ko kal ci Dakar Midi. ñu ngi remercier lay remercier waaw Jean jërëjëf waaw ñu ngi lay remercier ci liñ ko kal suñu seen di ñu seetaan fii moom kal ko fii rek lu xew Sénégal daal dara du la ci ëmb waaw mi ngi noonu gars yi ngi ngi puus xeer yi waaw gis nga de waaw xoolal suñu naataango ah mi ngi noonu taxaw sëgg teg genou yi ci suuf. mu ngi noonu de waaw yaa ngi noonu sëy lii waaw ñi ngi ñi ngi arrêté groupe fii en attendant ba xam lu xew étudiants yi nañ teg gendarme yi nañ teg ah waaw waaw affaire yaa ngi noonu de lii daal moom ma leen di woon nii mooy sànni affaire yi grenade moom fukki grenade ak juróom benn lay sendendoo bu safkaani nag waaw grenade yi safkaani lay sànni jaajëfal Abdou Abdou Gueye nee na en direct Italie j'espère